ba tey muxtar bin tolo yaa ngi tollu ci yamu dégg woon ci sëriñ bi toxale ko ci moom bind ko boole ci dajale ko ci yooyu nga tollu suñ muxtar ne ci atum tal sas 1339 ci weeru koor bis àllarba tolloog fukki fan ak ñaar señ bi waxoon na lii ci ab jataayam ne koor day day ñaari xeet koor ci shariha ak koor ci haqiqa kooruk shariha rek moom mooy li nga jàng ci téere ñu ne day yàq koor nga sori ko mel ne lekk ak naan ak jotek koor jigéen ak tux ak yooyu mu ne koor googu nag moom ku ci yam kep kep bu àggee ci dogu lañu baaxoo dogi rek muy lekk mbaa naan ak lu ko nuru mooy ndogu la kooruk xaqiqa nag mi waa tasawuf koor nit yàlla yi moom mooy koor goo xam ne gannaaw ba soree lépp lu yàq koor gu jëkk gee ni ko ñëpp defee day sori nag lépp luy bakkaaru cërub zahir ak lépp luy bakkaaru xol mooy daal day set wecc ci mooy yàlla ci cëri zahiram yi set wecc ya ba tey ci li ñu wax jàngoro xol ni ki rëy mbaa añaan mbaa lu ko nuru nga xam ne kon cër yi zaayiram yi fexe na ba sore ci lépp luy xeetu mooy nit ki wax lu amut mbaa jëw mbaa leneen xol mu sàmm ko ba dara ci lu yàlla bañ nekku ca nee na loolu mooy koorug xaqiiqa maanaam mooy koorug tasawuf mbaa nga ne mooy koorug nit yàlla yi la ci yàlla joxe muy ndogu mooy xeeti Sekre ci mboot maanaam ku koor koor gu selle noonu yàlla jox ko ndogul xam-xami secret xam-xami mboot xam-xami ki njëriñ